Le président Macky Sall 2012 bi mi programme yonu yokuté dafa monde rural ndaw ñi ak ñi té ñoñ ñi nga population vulnérable ci Sénégal waral suñu action dañ accès euh, priorité sociale ndax Macky réduire les inégalités sociales et réduire les inégalités territoriales Euh, diggante bi nga xamante ne moo dox waa taax ak waa euh, réewu àll yi diggante góor ñi ak jigéen ñi lépp loo xamante ne rek ci wàllum euh, mën-mën ak am-am ñu jàppale ci jigéen ñi. campagne électorale commencé gul dañuy def rek action de développement woo ministre de la femme mu may jigéen ñi ay subvention bu ko defee ñu jàppale leen ndaxte jigéenu Sénégal jàmbaar lañ am nañu yéene liggéey mais ku leen ko yombalal la looloo tax. ministre de la femme ñëw fi tey jàppale jigéen ñi ngir ku ci ne mën a li nga mën a yëngu nga yëngu ci ba tax nga am sa autonomie nga am sa dignité